gannaaw bañ leen nuyoo mbokk yi di rafetlu bu baax seen ànd ak la première chaîne de télévision privée euh, bu euh, Sénégal xibaaru marax yi door na ci sunu ay makkaan di jéggalu nag bu baax euh, ci bloc d' information bi waroon tàmbali 18h30 waaye nag suñu gan moo xaw a yéex a si fii ci sunu ay bërëb waaye nag di ngeen ko mën a am bu ñu noppee ci xibaaru marax yi dina ci ànd ak Cheikh Québec Adjara Bonardi si Oumar Ka lay doon xam-xamam màcc ci wàllum relation internationale diplomatie li gën a fës ci boppu xibaar yi léegi léegi lay doon. ñaari doomu aadama ñàkkati nañu seenuk bakkan ci tali bi mu xewee ci autoroute bi ci boru euh, Colobane borom jakarta bi moo doon moytu kenn ku doon jege euh, jéggi mu laal ko moo waral jakartaman boobu moom it oto daal di koy laal ñu jaare fe ñàkk seenuk bakkan ubbi nañu ñetteelu conférence économique internationale ci teewaayu jorin bu ñu denk wàllum enseignement euh, supérieur ak jorin bi ñu denk alam gi la ñu bëgg moo di indi ay coppite ci fànn bu nekk fii ci Afrique xibaar gu dans des ñàkk na amati rawatina ñi nekk ci caada Mansour Seck léegi mu ngi noppalikoo ca sëkk yu yoof ku ñëpp ràññee woon ci wetu Baba Maal tey nag daal dinañ koy jébbal suñu borom xarit am di ñaam ñëpp amandoo benn kàddu gi mooy nit ku baaxoon na tàmbali nañu ñetteelub édition festival international bi ñu jagleel littérature ay écrivain ak ay poète jógee nañu fu nekk ci biir Afrique ngir fekkee si bi lépp ndaje li moo ci gënoon fës mbokk yi léegi léegi boo leen ñu faram fàcce dal leen ak jàmm mbokk yi ci la première chaîne de télévision privée bu Sénégal door nañu xibaaru marax yi eh, ci sunay màkkaan nañ leen ko junjee ca bopp ba eh, ñaari doomu aadama ñoo daal di ñàkkati seenu bàkkan ci tali gi li ni mel xew tey eh, ci autoroute bi ci booru Colobane mu jàpp accident bu metti ndax ab jakartamaan moo doon moytu kenn ku doon jéggi ca nu muy moytoo kooku la ko daal di laal moom mi doon dawal jakarta bi nag oto tamit daal di koy laal ci lañu ñu mel dellu siwaat nañ ci eh, ci teewaayu Oumar Sambou ak Makhtar Dia. accident bi tey la am ci juróom-ñetti waxtu ci suba fii nag ñu fiy faral di nemmeeku ay jéggi yu jaaduwul ci yoon kii nag di suñ seede mu ñi nettali lu fa xew. waaye moo doon jéggi bon taseeg benn moto bon waa ji da ko doon moytu tamit borom moto bi da ko doon moytu waa ji di moytu borom moto bi far yàlla ñu daje bon ci la ko mbëkkee bon ci la waa ji décédé sur le coup bon après borom moto bi tamit moom it gaañu na bon après moto bi fan lañ ko jëlee sa après pont bii nii fan lañ jëlee moto bi. beneen mbir muñ fi seetlu selon suñu seede bis bi mooy comportement nit ñi ak ñàkkum daan bu nga xam ne am na ci autoroute bi. fii xam nga tamit dañuy wax duñ waxee dañuy wax dëgg quoi fii du jéggi kaay autoroute la parce que dañoo def bañ na ko dañoo defar pont nit ñi mën nañoo wëri dem jéggi foofu mais mënoo ñëw fii di jéggi chaque jour nit ñi dañuy jéggi fii. te état moo war a jël loolu en charge képp ku fi jege ñu jàpp la amande la teg la taxe mu métti nga dem fay ji ko loolu mooy solution bi. ñu fàttali ni mesure yu nga xam ne jël nañ ko pour wàññi accident yi dañuy tere doomu aadama mu jéggi autoroute bi wala péage bi loolu nag ñu fàttali ni dowalkatu moto yi ak ñu nga xam ne dañuy faral di jéggi dañ leen ko fi tëral pour moytu waaye tamit pour wàññi accident yu nga xam ne daf dee am ci tali bi. amal nañu euh, lii di ñetteelu conférence économique international bu ndakaaru ci teewaayu jorin bi ñu denk wàllum njàng mu kawe mi docteur Abdourahmane Diouf ak jorin bi ñu denk wàllum alam gi di professeur Daouda euh, te mu ren ji di wax ci transition énergétique ak tollale euh, lii di mbir yi indi ay coppite ci biir réew bu moo nekk nag li nga xam ne daal dinañ koy amal ci bopp lépp waxtaan jorin bi ñu denk wàllum njàng mu kawe mi pare nag ngir gunge université yu Sénégal dañuy teew lay kàddu moom docteur Abdourahmane Diouf eh, ki ko tataan di Teresa Timon Sombo da nga koy def parce que recherche moo lay permettre ngay seet di caytu li nga xam ne boo ci amee résultat ëllëg mooy tax sa réew am développement innovation mooy loo xam ne adduna bi dëkk yi nga xam ne ñoo koy diriger dañu ci jiitu réew yu mel ni Sénégal ñun nag ñu ne ministère bi bu ñu ko yoree recherche ak innovation dañ koy jox importance maanaam du ñu yem rek ci problème yi nga xam ne moom la ñuy dund tey mais dañuy jéem a ceytu problème yi nga xam ne mooy ñëw fi ak juróomi at fi ak fukki at fi ak fanweeri at te gis nañ ne loolu université Cheikh Anta Diop mu ngi ciy def liggéey bu mucc ayib université Mohammed VI bi nga xam ne te moom lañ nekkal en partenariat am nañ ci avance ma jàpp ne borom xam-xam yooyu ci nekk yëpp muy professeurs yi fi nekk muy étudiants yi nga xam ne ñu ngi def seen doctorat di ci def ay thèse buñ ci taxawee ministère bi jàppale leen gouvernement jàppale leen fii ak at yi di ñëw ci mbirum énergie mbirum électricité ak yeneen Sénégal kenn du leen ci ëpp doole. non seulement kenn du leen ci ëpp doole mais Sénégal dafay bokk ci réew yi nga xam ne jigéen ñi aussi dañuy jiitu ci liggéey boobu nga xam ne liggéeyum caytu la. amal nañu ab euh, forum national mu jëm ci wàllum autonomisation socio-économique mu ñeel jigéen ñi ak réseau droit au développement euh, ci yeneen alternative euh, REDA bi les entre exposition daal di nañu ci fësal ay produits yi nga xam ne fii ci réew mi lañ ko daal di defaree lu ci mel ni ay céréales mu du Xaban Fall Matar Dia kuréel gi di ëmb mbooleem ku yëngu ci wàllum promotion des produits ko fas naa yéene wasaare mbooleem produit bu bàyyeekoo ci sunum réew gannaaw ba ñu amalee ay waxtaan ci ndakaaru ni ki alxames ji waxtaan ak mbooloo mi parce que programme la li nga xamante ne moo bees ci biir mbir mi muy euh, dañuy def euh, promotion produits ko céréales locales yi promotion céréales locales yi mooy xamale ko ax mbooloo mi déjà commencé nañ ko ci gox yi li ci mel ne Kër Massar ak Géejawaay ñu ngi di école tam xamale ko ah école yi école yi dañu fay def ay waxtaan joxaale leen produit yi distribution gratuite la ñuy def parce que nit ki su fekkee dangay liggéey ci dara bëgg nit ki xam ko bëgg ko consommer mu jëriñ ko danga koy indil produit bi jox ko ko gratuitement ba pare wax ko produit bi lan lay def ci yaramu doomi aadama yi. liggéey bi nag door nañu ko ba jaarale ko ci yenn école yi commencé di fa séddale ay fonde ak lu ni mel. ñu fonde à l'école fonde à l'école bi nag suñ koy def mënuñu ko mënuñu ko def fépp loo gis da nga koy commencé ci benn déjà ñu ngi ci ñaari école au niveau de Kër Massar ñu ne nañ ko commencé foofu suñu xëyee la matin defar fonde yu bëree bëri ci anam yu gën a selle ñu ne pourquoi la cantine scolaire au niveau des écoles loolu moom xam naa état bi lañ ciy interpellé bu baax a baax parce que ñun amuñu doole dañuy doog a commencé bu ko defee cantine yi au niveau des écoles xale yi fa nekk dafa fa yendu mën di lekk bu baax mën a suur ba nga xamante ne li ñuy jàng dina dugg seen xel te seen xel dina ubbeeku. yi la jigéen ñoo ngi ñaan état bu Sénégal mu jàppale leen ba ñu mën a siiwal mbooleem produit buy bàyyeekoo ci sunum réew. dañuy wax euh, weneenu ponk ci biir euh, xibaaru maraxi euh, conseil municipal bu commune bu pikin Nord ànd ci ak collectif bu ñuy wax sàmm sunu moomeel ñooy joxañ baaraamu tuuma maire bi di Amadou Diarra ne dafa jël ñeenti hectare ci suuf yi nga xam ne moo nekkee ci booru arène nationale bi bu ñu sukkandikoo ci ñoom ab entreprise bu ñu dippee Venusus dafay sukkandiku ci ñoom ngir amal ab aménagement ci bopp lépp site ñuy sàkku ngir ñu amal ab audit foncier ca biir Pikine mi nekk conseiller municipal dénk na ay kàddoom Cheikh Omar Gueye. population bi moo fal monsieur le maire ni ko yow kat lañ wóoru jiiteel ñu commune bi mais dafa am conseil municipal yu mu fal aussi toxtal ko ci ni ko yéen aussi dee leen ñu saytul li maire di def conseil municipal yooyu aussi ñu ngi leen di woo leen mettre aussi face à leurs responsabilités leen wax que ni ñu taxaw pour défendre suufu Pikine Nord bi parce que suuf bi kese kese kese la Pikine Nord donc nag li ñuy wax population bi moom laa ñëwaat rek pour que ñu ériger wu en bouclier. en bouclier rek du xeex du xëccoo du sànni xeer du jamante paaka. mooy que ni ñëw taxaw taxawaay bi ba ñëpp xam nañu li ñuy def ci commune bi ñor na leen et que d' ci. d' accorduñ ci parce que lii avenir u Pikine Nord la. avenir u Pikine Nord la parce que Pikine Nord amatul benn suuf bu fi des suuf bi kese moo fi des. gis ngeen arène nationale bi ñu ko fi def forcé nañu def ko fi. ñu ñu indil ay jafe lii aussi bu ñu seeraanee mooy ñëw parce que dinañ fi def yeneen infrastructure yoo xam si xamuñu lan lañuy ñuy jural ëllëg te benn doomu Pikine du fi am parce que terrain yi li ma dégg ñu koy jaayee ñoom amul benn doomu Pikine Nord bi sa poos euh, jotee jote jote jotee ci suuf soosu noonu kenn bëggul tey foofu ñu tabax fa ay kër li ñu fa bëgg mooy ñu tabax fay infrastructure d'utilité publique askan bi yëpp bokkandoo ko xale yi am fu ñuy fooye mag ñi am fa nga xam si dinañ fa def seen ay activité ñi ngi woo population bi yëpp bu kenn toog sa kër nag ba mbiri passé nga naan conseil municipal yi jëluñu seen responsabilité ah ñun de lu ñu mën ak suñu kéemtalaay kàttan dinañ ko def question yi ñu wax bi dinañ ko laaj lépp lu ñu fa bëgg a def te du jaar yoon dinañ ko bañ mais nag am na fu ñu toll population bi ñooy taxaw ni maire arrêté ponk boobu ci la ñuy desandi waaye dañuy dem ci diwaanub Kaolack foofee nga xam ne nag dañoo bëgg amalab pexe ci jafe-jafe yi ci suuf si moo waral ñu amalab lël ak élus locaux yi ak professionnel yi nga xam ne ñoo nekk ci foncier foofule ca biir euh, Kaolack mu jàpp lël boo xam ne dañuy tàggat acteurs yi euh, ci wàllum gouvernance financière élus locaux yi boole nañu leen ci boobule projet ngir ñu yombal li nga xam ne moo di seenub sabab Ibrahima Ndour Moustapha fa toogal rédaction bu 2STV yi ñu amale ko ca capital bu Saloum muy atelier de formation des élus locaux ak professionnels yi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllum foncier mu nekk atelier bu am solo ngir renforcer seeni capacité ak seeni doxalin ngir ñu mun a càmbar jafe-jafe yi nga xam ne askan baa ngi koy jànkonteel ci wàllum suuf. Union africaine moo xalaat ni Afrique pour nous développer ko il faut nga maîtriser. Euh, nu ñuy gérer suuf si nu jox nu mandat Gaston Berger muy piloter benn programme bu mag si Afrique de l'Ouest bi nga xam ne tous les pays francophones noo ngi si ñu piloter ko à part de Gaston Berger donc Mali Guinée euh, le Burkina la Côte d'Ivoire Togo ñoom ñëpp noo si biir. def nu si dëkk yooyu liggéey bu am solo si formation parce que dun ni donc euh, pour ëllëg nu maîtriser ko suuf si mën a jëriñ Afrique développée. il faut que formation bi ñu insister si c'est pourquoi Université Gaston Berger grâce si programme boobu. mu mel ni sax dafa nekk ndaje boo ñëw ci waxtoom ndax jafe-jafe yi nga xam ne askan baa ngi koy jànkonteel fu nekk ci biir Sénégal. ñëw na ci waxtoom parce que li ay di njàmbat suuf la te tey suuf boo ko waxee du dundeekaay kese mais suuf ci lañ war a def projet de développement professeur wax na ko ci lañ war a dëkk ci lañ war a def leneen ak leneen ci lañ war a sàmm donc enjeu yi mu wundu dafa bari. ba tax na ñi nga xam ne ñoom lañ ko dénk dañ da baax donc ñu yokk seen xam-xam ba nga xam ne dinañ ko def doxalin boo xam ne dinañ faj soxla tey yi mais soxla suba yi tamit parce que ci la bokk. ci loolu ñi nga xam ni ñoo ay élus locaux dugal ci seen loxo bu baax ndax jafe-jafe yooyu nemeeku nañ seen gox yi. lañ koy gën a nemmeeku. parce que boo xoolee loi décentralisée euh, kii bi euh, domaine la loi sur le domaine national collectivité locale du am benn responsabilité bu mag parce que moom moom la ñu confier benn partie bu am solo si effectivement si suufu Sénégal. donc ñoom ñooy joxe affectation yi di désaffecté tey boo xoolee problème suuf yi si Sénégal yu ñuy tudd donc collectivités locales yi yu bëri donc si kanam donc loolu moom moo tax tey mënoo mënoo mënoo régler problème yi sans effectivement nga liggéey ak ñoom parce que ñoom ñoo nekk o cœur effectivement di di dispositif. ci boobu atelier ñuy xaar ñu gën a renforcer acteurs yi ak nan la ñuy def ngir xeex jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy jànkonteel ci wàllum suuf ngir ñu mun ci am ab solution nu mu gën a gaawee. Ibrahima bu buñ ca jógee dañuy wax lu jëm ci aj bi jamono ji nag ñu ngi daal di eh, tàmbali dem ci bërëb bu eh, sell boobu jàll jël nañu matuwaay yëpp ngir ujaaj yi eh, daal di dem waaye dikk ci anam yu mucc ayib jorin bu ñu denk wàllum dem beeg dikk bi jorin bu ñu denk wàllum affaire étrangères demoon nañu ca aéroport international Blaise Diagne bu Diass ngir saytu mbirum mbir moomu ndax bëgguñu gis benn jafe-jafe li ko dalee ci dem beeg dikk bi yëpp moo waral euh, kii di jawriñ bi di El Hadj Malick Ndiaye ak Yacine Fall euh, ñuy sàkku ci compagnie bi yor euh, wàllum tukki gi ñu dal di wekk lii di plan de vol bi Mamadou Diop Mouhamed Thiombane ñoo fa toogaloon rédaction bu 2STV. gannaaw ba nga xam ne ujaaj yi dinañ jógee fi ci Sénégal ngir dem ci Arabie Saoudite fi nga xam ne foofu la ñu ajee Makka. jëwriñ ñu dénk wàllu transport aérien ak affaires étrangères kat nekkoon nañ ci aéroport international bu Blaise Diagne ngir xool dispositif bi nga xam ne teg nañu ko ngir nit ñi nga xam ne ñooy war a jëm Makka du ñu am benn jafe-jafe. ñaari compagnie aérien Flynas ak Air Sénégal ñu fexe ba ñaari compagnie yooyu liggéey lëkkaloo ba sel pèlerin yi dem dem ni mu waree dem bi nag dafa am lu ko laaj ndax dafa préparé fi muy wàcce ci otom ba muy dugg naka lañ koy accompagner ba mu inscrire. jaar ci police jaar ci douane jaar ci gendarmerie toog bu waree julli mu julli bu waree féexlu mu féexlu bu waree lekk mu lekk ñu won ko tam yoon yi ba li mu ko war yëpp am ko xaalisam mat lépp ñu konte ko yoon wan nañ ñu nag fi ñu war a jaar yëpp loolu yëpp gis nañ ko. Yacine bi ñu dénk wàllu affaire étrangère rafetlu bu baax a baax li nga xam ne gis na ko mu sàkku nag ci ñi nga xam ne ñooy compagnie aérienne yi ñu respecté plan de vole yi nga xam ne moom la ñuy teg ci dem bi. ak ci bi ñuy retourné. gis nañu nag ni jéego jël nañ ay jéego ndax euh, xam ngeen ne daaw amoon na ay jafe-jafe yu bare mun na amoon na ay jafe-jafe yu bare ci mbiru lekk yi ñoom tamit dem gis naa vidéo yi ñu ma wan ak fi ñu ji di dal dalu yi mun na defar nañ ko ba mu baax bi yoon am nañ tamit lekk yi sam sotti xool nañ ko ni mu waree kon loolu euh, léegi nag waraf fi nga xam ne mooy xaaj bi. ñam nañ yaakaar ne dina aw ni mu euh, ba ñi nga xam ne seen waraf bi nga xam ne ko war a def dinañ ko def ni mu ni mu ni mu war incha allah. lu ni mel moom la jëwriñ jiñ jénk wala transport aérien xamle El Hadji Malick Ndiaye kat li mu bëgg moo dina ci atum ren gi du ñu ci am benn jafe-jafe. wax dëgg fa yàlla bi ñu ñëwee gis nañ fi lu kowe suñu njort ndax tiitaange ak njàqare amoon na ci waaye ginnaaw bi ñu defee réunion interministérielle bi ba dégg sas wi nga xam ne autorités yi sas nañ ñu ko. Ah, dañu xam ne toogaay amul faw ñu waxtaan ak mbooleem ñi nga xam ne ñooy yëngu ci mbir mi ngir ñu mën a am aj bu jaar yoon ndax ni ko yeneen réew yi di defee di dem di aji ba ñëw te du am benn coow mu doon lu yomb lu naturel comme ku jënd biyam rek tey pour dem Paris wala New York ñëwaat ñaari jëwriñ yëpp xam le ne gouvernement bu Sénégal dina taxaw ci kanamu ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk pèlerin yi waaye tamit compagnie yi leen di yóbbu ba lépp li nga xam ne moom la ñu bëgg ñu am ko ñu fàttali ne ci ajjuma ji su 4 heures du matin jotee ci la premier vol bi di jóge fii ci Sénégal ngir dem ci Arabie Saoudite buñ ca noppee dañuy yëkkati beneen xët junjoon nañ leen ko ca bopp ba mu di xibaar gu tiis tey ñu nekkee ca biir euh, daane lu ñuul nakar la ñu yeewoo rawatina ñu nekkee ci biir caada euh, euh, ki nga xam ne moo di Mansour sekk léegi mi ngi noppalikoo ca sëkk yu yoof levée du corps bi mu ngi amee tey ci suba ca morgue hôpital bu Fann kàddu yi benn la xarit am di njaam ak bépp mbokk mu nekkoon moom Mansour Faye ab Mansour Seck ab musicien musicien bu ñëpp ràññee eh, baatam ak gitaaram yàgg bëgga ay génération dañuy teew lay kàddu eh, ñenn ci ay mbokkam yi nga xam ne teewoon nañ ci boobu lépp eh, levée du corps ci micro Babacar Tombidou ak Lipas lay ndir Mansour ci culture muy ah, culture haalpulaar def na de telle sorte àdduna bi Afrique ci boppam en premier dañ ko bëgg naw ko ci biir loolu muy def ak loolu muy wéy culture pulaar boobu da nga ciy retrouver même chez les indiens parce que indiens yi c' est des haalpulaar c' des pël ils vivent comme les pël tant ay fit ay jaase ak yooyu la ñuy dundee pël yi tamit noonu lañuy ñuy dundee seen wéy itam boo ko dégloo sax tuuti da ngay xam ne wéy yu mel noonu la ñuy wéy donc nga dem Égypte loolu moo fa am. c' est que Mansour Seck dafa am kóllëre dafa am fidélité. maanaam moom dañuy waan xarit dëggantaan la ndax muy metti muy neex ànd ak Baaba Maal ba yàlla euh, jël ko mais nag Baaba Maal aussi euh, quoi qu'on puisse mosu ko seetaan te tey li ñu def rek mooy ñaanal ko yàlla xaare ko àjjana mais nañ mën nañu wax ni culture Sénégal dafa ñàkk Afrique ñàkk te Baaba te Mansour Seck du woon artiste boo xam ne Sénégal rek la ndax bitim réew lañ ko gën a def te li mu wër ci àdduna daanaa benn musique musicien Sénégal wëru ko ci àdduna bi. ki que depuis man bi ma juddoo ba léegi moom ñu tuddee ko sama boroom këru bàjjan man sama yaay tuddee ma sama bàjjan Kudeeja Si moo tax bu ñuy woy bu ne Baaba Maal ne Kudeeja mu ne jeewalam ça veut dire que aawoom ñun ñëpp ñoo ñàkk yàlla nag bu bëggee ñëpp dañuy ñàkk fi ñu koy ñaanal daal mooy li mu li mu fi bay mu am ñu ko donn ñoo xam ne bay na fi woy bu bu rafet yàlla na am lu su loolu ci àjjana tey àdduna bi yëpp guitariste lañ ma xamee yaru ci moom nekk ak moom moo tax ma am amur boobu mu di nit ku baax nit ku bëgg njabootam Mansour lépp lu mu am ci àddina njabootam a ko gënal Mansour lépp lu mu am ci àddina cin moo ko tere nelaw mooy lan dépense mooy lan na këram bu mu xiif këram bu mu mar ay mbokkam bu ñu xiif ay mbokkam bu ñu marle moo tax it ma ne dañoo perte un défenseur de la famille. wallaay loolu xam nga ne loolu laa wax ne que euh, c'est le c'est le modèle culturel par définition boo déggee Mansour Gawlo rek nga xam ne Fouta ngi nii nga xam ne yëlaa ngi nii ce qui fait que. nit bu baax la au-delà de culture nit buy yiw la nit bu fidel la nit bu bugg bu mën a jàpp xarit man bu ñu xamante ba léegi ci 2019 sama meeting dancaa yi pourtant dafa xaw dafa commencé woon si bul mais def na ba taxaw wax woy foofu moom euh, Mansour Seck bokk na ci ñi nga xam ni ñoo daal di sanc euh, lii di orchestre dans des Lignoles moom nag mu daal di adduna dëddu àdduna ni kiy demb ci guddi mu ngi judd woon moom Mansour Seck ci atum 1953 euh, ca Guédé village ñëpp ràññee ko bu baax ci wetu Baba Beydi Mal baatam nekkoon benn ci musique Yela Mansour Seck léegi nag mu ngi noppaleku ca sëkk yu yoof Amadou jaw moo ñu ñuy dellu siwaatal ci jaar-jaaram ihe jaho jaho sawdiyade du peuple batu askan wi ñàkk kenn ci ñoom Mansour Dini Seck gane si atum 1953 foofu ca Guédé village ci département bu podoor nekk njirim ginnaaw bu mu amee lii di ñeenti at turandoom ji wee ci turu Mansour Ibra Ali nekkoon percepteur foofu ca subdivision bu Podor moo ko yar dugal ko nag lii di école primaire ginnaaw loolu nag ñu daldi ko fa jëlee indiwaat ko nag ca Guédé village ci wetu papam atum 1960 Mansour Dini Seck daal di dugg école régionale 1 foofu ca Podor ci début année 60 mu daal daje ak Baba nekkoon élève ca école 3 bu Podor Mansour Dini ak Baba Maal ñëpp am lii di passion ci wàllum lii di théâtre ak musique ginnaaw bu mu décroché lii di brevet nag mu daal bay li di jàng ginnaaw bu mu amee problème ci wàllum lii di bët ci atum 1968 si seen i ndaje ñaar ñi nag daal wër àdduna yëkkati nag lii di kàllaama pulaar atum masur diini Seck daal di fekki Baaba Maal ci troupe artiste bi ñu duppee las Lasli Fouta nga xam ni nag jamono jooju ñu ci àndoon a kii di Acha Wele Medda Diagne ak Samba Dié ginnaaw ab test bi mu daal di jàll Mansour Seck ak Baaba Maal ak kii di Mbasu Ñang ñoom ñëpp nag ñu daal di bokk ci benn orchestre atum 1979 ñu daal di tàmbali caravane duppee ko lappi Fuuta moom Mansour Seck ak Baaba Maal daal di ko jiite ñu daal di wër Fuuta dem ca réewu Mali dem ca Côte d'Ivoire boobule caravane nag ñu daal di ko dakkal ginnaaw génnub àdduna wayjur wu góor bu El Hadj Baaba ay weer ñu daal di ko teg moom Baaba Maal ñu invité ko foofu ca réew France mu daal di ko yónnee billet d'avion ci atum 1981 mu daal di des nag foofu ca réewu France ci lu toll si ñeenti at ginnaaw amal ay concert ci ay foyer atum 1985 Mansour Dini Seck ak El Hadj Baba Mal daal di sos li di troupe Dande leñool indi si nag ak ñu bëri album yi di Jamleeli taan ba Bagel am empreinte Mansour diini Seck ndax yàlla bu neex dum ci wëy digganteem ak Baba Mal doon coloré bu yàgg ndax ñoom ñi nag daal dinañ wër àdduna wërngal këpp ngir wëy waaye it yëkkati kàddu doon ambassadeur kalaamay pulaar waaye it teewal réewu senegal ci concert yu mag ci adduna wërngal këpp tey jii nag moom Mansour Dini sekk daal di fekk xaritam ba Mama Gaye mu bàyyi dandi leñul doon njërim ndax béy na si waar bu am solo tey jii nag lañ ko fas yéene jébbal boromam foofu ca sëg jullit yu nekk foofu ca yoof ci sama kàddu Amadou Diaw njiitalub origine SA di El Hadj Ibrahima Ndiaye mu ngi masaw te it di jébbal njaalam njaboot gi yëpp nga xam ne ñoo ñàkk euh, ki nga xam ne euh, bokkoon na ci ñoom te it duñ ko fàtte euh, ba faw dañuy woyal xibaar yi wax ci wàllum caada nañ leen ko junjee woon ca bopp ba ñetteelub édition festival international de bu littérature ubbi nañ ko ni ki démb thème buñ ci waxtaanee di livre mémoire des civilisations festival bi ni mel di dalal ay écrivain ak ay poète yi jógee ci biir dëkku Afrique yi eh, soxna say Mbàkke libaas lay ndir ñoo fa toogoon ñetteelu édition festival international de la littérature tijji nañ ko démb ci àllarba ji ci ab discours am professeur ñëwaat ci histoire littérature ak njëriñam ci société bi jëfandikoo li di kayit dafa gën a fës ca Europe ca 14e siècle support boobee nga xamante ni nag Chine na jógee jaarale ko nag ca culture arabe indi na ay coppite yu jékki dayoo ci ay histoire yu yenn téere yi. yi nga xamante ni nag moo noonu yomb nag lii di parchemin li ni mel nag tax ñu daal day tas ci ni mu gën a yaatoo rek lii di livre yi. tey jii nag li gën a yombal nag livre ñu koy wëyal nag jaarale ko ci papier yi moo xam génération ak génération am bokk na itamit rek ci anam buñ ko jaaralee ci xarala yu bees yi loolee sax jamono ji dama ne rek ab patrimoine international bu ñëpp bokk la. bu ñu sukkandikoo ci Abdoulaye Fodé Ndione bindkat kenn du ko wax na muy bindee dafa war a bind ci xalaatam. waaw xëy na man du ma ko gisee noonu parce que xam nga bindkat moom doo ko wax ne fii rek ngay bind di nga gis bindkat moom day jóg rek. xalaatam lay yor bind ko mun naa neex nit ñi comme mun naa naqari nit ñi ci loolu nag nit kiy jël koy liir moom mooy am choix am xaaj na kii bindkat bi moo ko gënal kii beneen bindkat bi moo ko gënal mais boo koy xool ci bind rek mënoo ne euh, jaaral fii parce que buñ ko defee sax du baax tax nit ñi dañoo war di bind lu nekk seen xalaat ak lépp loo xamante ne sax dañ koy bañ mën nañ koo bind. bu ñu sukkandikoo ci ka fa teewaloon jëwriñ ju ñu denk wàllum ndaw ñi tàggat yaram ak caada. li ñu bëgg mooy bépp bindkat mën a gis boppam ca la muy def. jamono ji nag li nga xamante ni nag moom moo ñu war a yitteel mooy fexe rek ba daal di liggéey ba am environnement bu mucc ayib. ngir wàllum lii di littérature waaye it fex rek ba jàppale ñi nga xamante ni nag ñoom ñoo di bindkat yi aar seeni patrimoine littéraire waaye it encouragé ñi di auteurs yi état bu Sénégal mu ngi bëgg a jëmmal rek ngir euh, livre maanaam téere doon jumtukaay boo xamante ni nag dafay doon jumtukaay bu am solo waaye it fexe rek ba ñii di auteurs maanaam bindikat yi mën dund ci seen liggéey bépp chaîne de valeur ak képp ku ci yëngatu. développement du livre et ci ñeenti fan yi festival yi dinañ ci amal ay waxtaan ngir yokk xam-xam ndaw ñi jeexalee ko ca Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose joxe fa ay prix. waaye balaa boobu ñu déglu professeur Massamba Gueye. jaajëfal ko lu bari moom soxna say Mbàkke mbokk yi ci xibaaru caada yooyu la ñuy jaar yëkkati jotaay bi di jaajëfal mboolem technicien bu ci jàppoon ba xibaaree daal di am léegi léegi di ngeen mën a am bloc d'information eh, ñu fas yéene ci dalal Oumar Ka xam-xamam màcc ci relation internationale eh, protocole ak diplomatie di ngeen ci ànd ak moom eh, Cheikh Kébé ak Ajara Bonardi Cissé ci kàllaamay nasaraan jaa ngeen jëf ci topp gi ak teewlu gi.